Euh, dañuy ñëw ci li nga xamante ne mooy provoquer faiblesse sexuelle. waaw ñenn ñu bari bu ñuy wax dañ naan masturbation da koy da koy def ñenn ñi ne des fois am na yenn saay-saay yu la koy def tout d'abord lan mooy provoquer bu dul ñaar yooyu wala peut-être d'accord nga sax ci loolu ba pare masturbation ndax day joxe faiblesse sexuelle. bu baax ci naka. day yóbbu érection day joxe faiblesse sexuelle. Mhm. day day day day tax sax nit du nekk góor. Hmm. waaw mais booy masturbé wu lu bari. lu bari. xam nga loxo dafa am tokki loxo waaw. dafay ray sa sa sa dafay ray sa kii bi sidit bi baaxul ci benn. deuxièmement li poussé nit ki mu dem di def mastur muy masturbé wu. waaw loolu sa psychologie. waaw loolu si saytaana la. Hmm. dafa am ay jinne yoo xam ne dañuy soxla sperme. ah waaw. dama jinne shayatin yi nga xam ne dañuy soxla ay pouvoir xam nga jinne ñaar mooy itéem. mooy alal ak pouvoir. pouvoir loolu mooy seen àddina hmm. alal pouvoir mooy seen àddina léegi nag dafa am pouvoir yoo xam ne bu ko jinnee soxla te sperme nit lay ut d'accord léegi nag bu ñu la xiiree ngay dem dem masturbé wu soo masturbé woo soo éjaculé ci toilette bi mm-hmm. ñoom dañuy jël liñ soxla hmm. bu jëlee liñ soxla nag seen sperme la ñuy jël dem def ko ci seen ay pouvoir léegi nag bu ñu soxlawaatee pouvoir ñoom ñooy ñëw sa xel mi ëf si sa xel mi di wax si sa nopp yi waaw waaw demal demal booy dem toilette doo ko tey doo moo tax man ñi ma ciy faj ñu bëri su ma leen fajalee affaire rab ñu bàyyi ko mais loolu noonu rab la moo la koy def rab moo koy def waaw seytaan yi ñoo koy def jinne seytaan yi ñoo koy def nit ñi moo tax ngay masturbé doo ko tey doo ko tey am na ñoo xam ne dañu am jabar sax dañu masturbé wu am jabar di masturbé waaw waaw am na ñu koy def ñoo xam ne tey ñu ko loolu de doy na waar waaw ah. masturbation waaw am na ñuy masturbé masturbation ku ko koo gis mu koy def rek xam dafa am rab dafa am rab waaw dafa am rab. te rab bi moom fii mun nañ ko si faj moom. waaw boo ñëwee dama koy faj complètement mu dañ si yow. Hmm. waaw kon gars yi dégg ngeen euh, beneen bi nga xamante ne comme wax nañ ko mooy euh, euh, des fois rab yi nga xamante ne dañ lay dugg dina andi tamit faiblesse sexuelle. waaw waaelle rab yi dana indi faiblesse sexuelle. Mhm. dana indi éjaculation précoce am na ñoo xam ne sax. bu ñu am seen jabar bu ñu amee rab. Mhm. rab boobu mën na boo demee ba war a sa soxna bien ah. que ñoom ñoo koy def. ok rab dafa am na ci jigéen yoo xam ne am ay àndandoor yu bari am na ci àndandoor yoo xam ne dañuy fiir. Ah. fiiraange boobu noonu mën na waral boo demee ba war a ànd ak sa soxna. waaw nga gis ñu ñu dóor la benn élément ci sa xel. waaw léegi sa mooy wàcce ci sàkkar bi. Ah. macha allah am na ñeneen ñuy wax ne aussi foogu bari day dem ba andi faiblesse sexuelle. foogu bari loolu bokk ci. parce que nit organam bi buy def effort bu bari day dem mu a am mu ngi mel ni tey nga def Ah. sëy daal sëy waaw boo ko gëjee def waaw booy sëy waaw li ngay gaaw a sentir li ngay gaaw a waaw wax nga dëgg boo defee ñaar ñetti yoon ci journée bi ñeenti yoon ñeent doo sentir da ngay nekk en état bilaay da ngay nekk en de waxee sax gaa yi moo taxoon waa ji waa ji daw Kaolack de ba muy daw Kaolack sax tayi ko ngeen <laughs> hmm, waa joo xamante ne <laughs> moom waa ji waa ji waa jaa ngi lay dégg de <laughs> na ah waa jooju laa wax de waaye sëñ bi dañuy gis ñu bari aussi dañuy dañuy poser question di laajte ci li nga xamante ne muy euh, bio naturel bii ma téye li nga xamante ne muy faiblesse sexuelle bi dafa am ñaar bi nga xamante ne benn bi mooy traitement bi mm-hmm. am na boo xamante ne aussi sachet la. waaw ah. bii ban la ci. bi mooy sachet yi. bi mooy sachet yi. waaw ah. léegi. léegi nag yii. waaw yii dafa am traitement complet. Ah. dafa am boo xam ne traitement complet am na ñoo xam ne dañuy bëgg dañuy manqué érection tuuti dañuy bëgg lu leen renforcer. waaw waaw ñoo ñuy jël sachet yi. Euh, yooyu ñooy jël sachet yi li c'est en poudre quoi. yii yi la ñuy jël nii moo nekk nii en poudre. macha allah di ko naan di ko dañ koy infuser ci ndox ko ndox bu tàng. waaw cuillère à café ngay jël. Mhm. jël euh, benn kuddu ci kuddu café. waaw kuddu kuddu bi ñu mhm. poudre bi sotti ko ci ndox bu tàng bi. bàyyi ko ba ndox bi sedd. nga yëngal ko tuuti bàyyi ko ba mu wàcc. nga naan ndox bi si poudre bi nga tudd. léegi c'est quoi différence aujourd'hui lii nii sachet bi nga xam ne da nga jël ak traitement bi. traitement yi mooy pour nga wér. pour nga wér carrément. am na ñoo xam ne feebaruñu mais dañoo am tuuti jafe-jafe. léegi boo amee tuuti jafe-jafe. bu ñu leen joxee benn sachet ñaari sachet dañuy wér. mais am na ñoo xam ne nag dañoo feebar. dañuy am problème érection bu ñu tëddee seen soxna ba bët set duñ def dara. def dara bu leen seen soxna cokkaasee bu leen yéegee seen kaw bu ñu bëree ñoom tous dara dana nemm. Mhm. voilà am na ñu mel noonu. am na ñoo xam ne seen jabar sax buy préparé ñu tiit. seen hmm? fit bi dem waaw. dootuñu fa ne mukk parce que dañuy xalaat ne ñoom duñ ko satisfaire tax am na si jigéen oh. ñoo xam ne boo leen satisfaire dañ la koy wan waaw dañ la koy wan am na ñoo xam ne dañ la koy la koy dañ la koy wan dañ la koy wan de voilà billaay ah dootoo amati moom baat moom boo ko bëggee am moom ah. man ngay gisal rek bu ñu gisante ak yow rek boo amee xaalis bu ci gi boo amul <laughs> lii lii ah, lii Ah. caabi bi mais ku wër ku wër péng ku dara jotul mën na jël lii. bañ a jël. ah à part à à partir de quarante cinq ans. ah da nga war di da nga war di entretien sa bopp entretenir sa bopp. léegi caam gi nga sachet bi boo ko mosoon. <laughs> Eh, xaaral ma yóbbaale def benn sama poos. ay la bu mu jeexee da nga ne sëñ bi anam. <laughs> Farel ma def benn sama poos rek ak waa ji nekk ci région bi ma joxaale ko benn. buy def kaw bii sachet bi xam nga yow dara macha allah yaa ngi na impec. nice yaa ndax bu fekkoon yaakaar naa yaakaar naa ko jàmbat. Ah, ko jàmbat kay. waaw ah, kon comme jàmbatoo moom may may yaakaar ne yaa ngi yaa ah, kii nii mu mel nii nga fekk dara jot la nga naan ko nii. bu jeexee da nga ñëwaat ne sëñ bi anam de kii kay bàyyi ma yóbbaale bii moom. <laughs> bii moom maa koy yóbbaale.